Ibrahima Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. Euh, maa ngi leen di fay euh, madame di leen euh, gërëm di leen sant si seen teewaay tey bi. may fàttali ne ñoo ngi dalal directeur de l'assistance et de la promotion de Sénégalais de l'extérieur tey ji ñu ñu dégg ngeen di wax projet gouvernance migration et développement lan lay wundu. waaw projet bi li muy wundu lu lu simple la su ngeen fàttale ko amoon na benn sommet bu ñuy wax sommet de la Valette. bi amoon bitim réew bi nga xamoon dafa boole réew yi euh, yëpp ci mbiru migration ñu si doon waxtaan naka la ñuy fexe ba nga xam ne lii di migration ñu toppatoo ko ba nga xam ne dafay am kaaraange mu am ordre mm-hmm. bi sommet boobu amee ak suñuy partenaire ñi nga xam ne ñooy Union européenne mu am lu ñuy woowee fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne maanaam koppar boo xam ne Union européenne daf ko jagleel pour euh, mbirum migra émigration euh, immigration bi loolu amee si la ñu am lu toll ci neuf millions d'euros euh, bi ñu jagleel Sénégal si projet bii ni GMD nga xam ne ñun ministère des affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur direction d'appui aux sénégalais de l'extérieur ak agence espagnole de coopération ñun ñoo ko war a exécuter waaye euh, fond bi c'est programme bi projet bi pour ñeenti at la woon mais comme ni ngeen ko xamee bi Covid bi ñëwee ba léegi lu bëri dafa taxawoon dafa soxe woon parce que mënuñu woon def dara ak situation euh, bi ni mel looloo tax euh, bi nga xam ne mbir mi xaw na wàññeeku tuuti si la ñu gën a commencé sunu activité mu jëmale ci installation lu ñuy wooyee BAOS après xam na dinañ ci dellu si mu demaat aussi ci li ñuy wooyee tey jii Euh, ndaje bi ñu am mooy ñu xool ni ñuy waxtaanee ak suñu ak journalistes yi ak taskatu xibaar yi ba nga xam ne dañuy euh, dañ leen di tàggat ci ni ñuy amee information si mbirum migration ak nu nuñ koy mën a euh, wasaare. Mm-hmm. loolu ci tënk mën naa la wax ni loolu mooy. projet euh, GMD euh, gouvernance migration et développement. ñan ñooy cible bi. Euh, migration et développement projet bi ñi muy cible mooy ñi nga xam ne mooy migrant de retour mooy ñu dem bitim réew ba ñu dellu si moo xam dañ leen dellu si par la force wala dañuy def lu ñuy woowe retour volontaire maanaam dañuy seeni bopp ñoom ñoo jog ne dañuy ñibbisi euh, ñaareelu cible yi mooy ñoo xam ne jàpp nañ ni war nañu mën a nekk ay émigrants maanaam benn xale boo xam ne euh, amul diplôme euh, amul xëy mhm. et puis ay xaritam ay rakkam wala ay magam ñu ngi bitim réew kooku war nañu mën a jàpp ni suñu deful dara mhm. kii mën na nekk ëllëg si biir kenn koo xam ne day jël gaal yi wala day jël euh, yoonu suuf si waxuñu ni dañuy tere kooku mu dem non nit. sa droit la sa àq ak sa yeleef la nga jóg ne man damay génn dem fu ma neex dellu si siwaat fu ma neex loolu déclaration universelle des droits de l'homme sañ-sañ boo xam ne moo la ko may mm-hmm. mais ñun lu ñu war a mën mooy lu ñu bëgg mooy soo bëggee dem ñu won la anam yi ngay demee expliquer la li nekk ci dem su dee it jàpp nga ni war nga mën a toog fii liggéey fi tekk fi ñu xool ñun nuñ la mën a dimbali mm-hmm. euh, looloo tax bépp région quatorze régions yu am Sénégal yëpp dañ fay ubbi lu ñuy woowee bureau d'appui orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur euh, maanaam BAOS. Hmm. ARD bu nekk am na benn BAOS boo xam ne lu muy toppatoo mooy euh, di suivre di di di di dimbali jeunes yi fa nekk yi nga xam ne soit ay migrants de retour lañu hmm. wala des migrants yoo xam ne des ñi nga xam ne la war nañu mën a nekk euh, migrants. ji yéen a ngi wax migration euh, développement gouvernance euh, entre autres ay mooy yi nga xam ne aligné ngeen ko tey ji li jëm ci dem beeg dikk bi muy migration boobu ñuy wax euh, nan la mënee suqali koom-koom réew. waaw ni mu mënee suqali koom réew mi li ma dama bëgg fàttali rek lenn lu am solo ci mbirum migration. Mhm. parce que ku nekk fi nga tollu gis-gis bi nga ci am mën na wute ak keneen ki. soo jëlee euh, ñu nekk par exemple réewu taax. su su dëkk tubaab bi. li ñuy jàpp si migration mooy migration sécurité moo leen gën a soxal koo ci ne migrant rek mu mu xalaat sécurité ñun ñi nga xam ne ñu fi jógee ti dem bitim réew kenn ku nekk ci ñun am nga rakk mag cousin bàjjan wala ku mënti doon mu ngi bitim réew ñun soo ñu ne migrant dañuy jàpp koo xam ne daf ñuy dimbali day euh, yor fi njaboot gi day yor fi kër gi yor fi pap yor fi yaa yaay ba tax na li ñu gën a soxal ñun suñu position mooy li ñuy wax migration et développement parce que dañu jàpp ni migration bokk na ci loo xam ne dafay indi dafay yokk koomu réew mm-hmm. euh, du ñun rek a ko wax euh, banque mondiale wax na ko FMI wax na ko dem nañu ba ñu wonee nii lu émigré yi di dugal ci réew mi moo ëpp lu ñuy wooyee aide publique au développement loolu wonee na importance euh, Euh, migration importance ñi nekk bitim réew te di dimbali sénégalais mais am na solo mais lu gën a amati solo ci ñun mooy ñu fexe ba loolu noonu ñuy yónnee loolu noonu ñuy dimbali fii nii ñi fi ñi fi des ñu fexe bañ ko dugal ci secteur yoo xam ne dañuy loolu la ñuy woowee secteur productif naam dëgg la ku nekk bitim réew euh, sa loyer fii nii il nga fay ko. jàng xale il faut nga fay ko euh, ñaanuma ko yàlla su amee li li li yàlla bëgg euh, ci kër gi il faut nga nga yónnee su amee bànneex aussi même chose mais yooyu da di ay investissement yoo xam ne si gàttal mën nañu wax ni si routinier maanaam loolu da nga koy def chaque mois di ko defati di ko defati ñun lu ñu bëggoon mooy donte loolu day am mënta ñàkk mm-hmm. mais ñu xool aussi. Euh, nan lañu mënee jël comp ci astuut li li migrants yooyu di yónnee ñu orienté ko ci lu ñuy wooyee maanaam secteur euh, investissement productif jafe na lool mais loolu euh, c'est pas impossible moo tax il faut que ñu yokk waxtaan bi ñoo xam ne seen xam-xam màcc na lool ci mbirum investissement productif ñu xool nu ñuy waxtaanee ak ñoom waxtaan aussi ak sénégalais de l'extérieur yi xool euh, yenn président Macky Sall wax na fi mbiru euh, banque des sénégalais de l'extérieur pourquoi pas c'est une sorte de de d'investissement euh, productif soo jëlee par exemple l'achat des bons du trésor les les sénégalais de l'extérieur mën nañ aussi di si investir donc les filons yoo xam ne mën nañ ci investir bëri na lool mm-hmm. te jàpp naa ni peut-être suñu gën a avancé suñu waxtaan su gënee xóot ak suñu partenaires yi dinañu mën a am des solution dans ce sens-là. Mhm. tey euh, ñu gis ne ci diiru ñaari fan tàggat ngeen ci ay taskatu xibaar ngir ñu gën a am beneen taxawaay ci li nga xam ne mooy waxu émigration ñu bëggoon a xam tey ban solo le traitement de l'information am justement ci question boobu. waaw euh, solo si soo ko xoolee boo xool euh, demal ci réseaux sociaux si ngay xam solos Euh, xibaar ci mbirum migration mhm. benn vidéo bu ndaw benn TikTok benn Snap euh, bi nga xam ne kenn xamul fu mu jógee kenn xamul ko ko yónnee mën na indi fii benn gilaawaali ci la ñu jàpp ni ñun que information bu crédible maanaam boo xam ne fu muy soxee ko wóor na la information boo xam ne fi nga koy jëlee kila koy jox ku wóor la pour ñun foofu la information migratoire bu wóor te te wér foofu lay tàmbale ci lañu jàpp ni ndaje ñaari fan yi dinañu permettre benn ñu xool ak journaliste yi nan lañuy ñuy fexe ñoom ñu jot ci information bu baax ci euh, question migra migration mais ñoom nan la ñuy fexe ba tasaare information yooyu ñu ko nar a jot jot ko ci anam yu gën a rafete mm-hmm. donc loolu am na solo ba nga xam ni euh, ñun bokk na ci sunu suñu yitte parce que yenn saa dañuy toog ñu naan euh, les autorités ne communique pas ou bien am nañu benn information ñu ngi xool nuñ koy recouper amuñu ku ñuy tontu loolu lépp c'est des situations yoo xam ne kenn mënu ko bañ mais ñu fexe ci biir waxtaan. surtout sur une question aussi sensible que la migration ñu mën a am lu may wooyee un consensus minimum dans la gestion et la circulation de l'information. Mmh, ñuy wax immigration irrégulière tey jii ndax Sénégal am nañ ci xayma ñaata nit ñoo fi jóge nekk bitim réew nekk ci cas yooyu ak ñi fi nekk tamit dellu si euh, muy benn cartographie. waaw euh, suñu demee ba ne immigration irrégulière. définition mënoo xam ay ma xayma bi parce que loo xam ni dafa régulièrul mënoo xam ni ñaata la donc loolu jafe la boo xam ne eh, amul benn réew ci àdduna mm-hmm. bu lay man sama ndaw yu nekk bitim réew dans des situations irrégulières nii la ñu toll amul sax euh, sens euh, leneen li mooy ñun nu ñu amee ay sénégalais yu nekk dans des situations irrégulières ci ay yeneen réew réew yooyu it noonu la ñu amee ay seen i ndaw yu nekk fii sénégalais nekk situation irrégulière mais lu si gën a am solo ñun euh, direction générale d'appui aux sénégalais de l'extérieur mooy sénégalais foo mënti nekk ñun xooluñu régulier nga wala régulier wuloo parce que suñu gis-gis amul sénégalais bu régulier wala bu régulier wul sénégalais rek am ba tax na liñ la war a indi si soutien si assistance si tàggat si protection dañ la koy indil sans considération ndax régulier nga wala régulier wu parce que soo régulier wala ñàkk régulier si euh, c'est au regard de la loi du pays fi nga dëkk fi nga nekk mais pas au regard de la loi sénégalaise moo tax le débat pour man waxtaan bi fi mu war a nekk dëggantaan mooy nu ñuy toppatooyee sénégalais yi euh, fu ñu mënti nekk ak euh, nu ñu mënti mel Euh, foofu ñu nekk noonu et loolu ñu ngi ciy def ay jéego ñu ngi koy fexe dëggantaan ba tax na euh, sooy wax xayma ça me permet ma rappeler euh, instruction yu président de la république joxe woon le 12 août dernier joxe ndigal pour que ministre des sénégalais de des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur fexe ba fépp fu sénégalais mën a nekk bitim réew ñu mën a leen xayma mën a am benn cartographie xam ñu xam ku nekk fi nga nekk ni nga fa nekkee ak lan mooy sa sa occupation jàpp naa ne ci ay weer yu néew dinañu mën a am premier résultat recensement boobu. tey euh, ñu jeexaleek mbëkk mi fuñ ci toll Sénégal ndax gisoon nañu ba ndox ci ndoxteelu mbas mi euh, ni mu fi ne woon cour mu jékki-jékki 2021 euh, mu am benn rapport bi nga xam ne société civile ay nit yu nekk bitim réew. taxawal benn kuréel société civile ñoo joxe boobu lay xayma ne Sénégal ay gaal jógewuñu fi atum 2021 ba mu door léegi euh, dem bitim réew wutali bitim réew maanaam yeneen côte la gaal yi di jóge euh, tey jii euh, lan nga ñu mën a wax ci mbëkk mi Sénégal. may rafetlu loolu parce que loolu day wone nii ñu ngi def ay jéego ci fexe ba mbëkk mi ñu mën na ko juguler maanaam ñu mën na ko arrêter. parce que situation boo xam ne la euh, euh, on ne fait la politique de l'autruche moo ne euh, mooy que nii li ne fàng kenn du ko jeex mais ñun lu ñu war a def mooy donte loolu am na fexe ba nuñ koy toppatooyee. Mm. nu ñuy fexe ba du dellu ci waat tey jii bu de donte yow mi journaliste yaa ni ma que loolu rapport génn na bu naan wàññeeku na trop duma def lu dul sant si mais aussi. Euh, remercier les plus hautes autorités ñoo xam ne ñoo jël les mesures qui simpose ñu xool nu ñuy aaree jël ay matuwaay pour loolu bañ a am te su amee ñu xool nañ ñooy responsable yoon daal seen kaw ndaxte loolooy yoon aussi euh, état boo gis pour mu mën a dox ñaar am na si solo li ñuy woowe prévention aar mais aussi lu ñuy woowee répression maanaam ku def lu jaarul yoon yoon mën a daal sa kaw. Ibrahima Cissé ñu maa ngi leen di gërëm